loolu loo tax nit ñi xam la lu ñu la xamee xeex wala nalaw wala sàcc il faut ñu ne lii tax ñu tànn ko def ko suñu président fu ma dem ñu ne yaa war a nekk président ndax bu ñëpp dawee yaa fi nekkoon dañuy taal dëkk bi yow lañu gis Tic Tac war a yore Sénégal Yambar war a yore Sénégal ba ñuy taal dëkk bi yow kenn kenn dem yaa taxaw jàlloog bàdd yi bay taal sa kër taalu sa kër keneen <laughs> ki jàlloog bandi yi ba bandi yi complot pour tal këram xam nañ ko ki doon duma bandi yi di leen duma di leen duma bañ da ko yàq mel ne xemee da ko dalee Canada da ko dalee Amérique seen bande yooyu di nekk net di sàgg nit ñi da ko dalee kooku nekk Paris ak seen groupe bi nekk fi Sénégal suba ngoon ñu may saaga internet bi di ma fenal di ma sosal foo ne damay dellu ginnaaw mukk buy duur rek jàlloog ñoom rek ñu ne buñ taalee këram mu daw mu gën a jàlloog ñoom rek سوريب ديو تابيت نداخ ليغي جياديزم سلافيزم راي كاتيني ني ماني سلافيستي ريبيلي راي كاتيني ني نيو بري سي افريك سورتو سون زومبي سينتور دو فو كون امول فيت امولو خام خام امولو جار جار منو لو يوري ريو نا ريبوندي با لا بروفوكاسيون دا افي képp koo xam ni voyou nga li may wax du la neex man maay maay faj band yi ak wayu yi déglu leen fajkat yi band yi mooy wax ak yéen calme bi tàccu leen tàccu leen loolu tàccu leen militant yi tàccu leen xam ngeen fu ma jàkkaarloog band yi rek ñu daal di jaxasoo dama ni je suis l'ennemi juré l'ennemi juré des ennemis du Sénégal l'ennemi juré des salafistes des rebelles, des bandits, des tueurs, des voyous, des trafiquants de drogue, des trafiquants de toutes sortes. L'homme du 23 juin est là. L'homme courageux est là. Vous le connaissez. Le député du peuple est là. Vous le connaissez. Réunis vous votre toll gaz à pétrole Blen, waar is hij? Ik kan hem tollen, tollen. Toglen, blen, kom toch. Toglen, toglen, toglen. Toglen, olha a polícia. Olha a polícia. Lá por dentro, olha a polícia. Olha a polícia, me dá hora, lá por dentro. Calmei-vos. Calmei-vos, olha a polícia, gelen. Calmei-vos, toglen, toglen, calmei-vos. Não é ele já, eu, eu, eu, eu, direto na prisão. Calmei-vos. Béranger. Calmei-vos, gai, calmei-vos. Il y a des infiltrés, on nous a infiltrés. Les gars, on nous a infiltrés, calmez-vous. On nous a infiltrés, calmez-vous. Personne, personne ne peut nous perturber. Calmez-vous. On va les envoyer à la police tout de suite, calmez-vous. La police arrive, calmez-vous, calmez-vous les gars. Calmez-vous, les bandits seront arrêtés immédiatement. Calmez-vous. Je les comprends, ils, sont, infiltrés. Mais calmez-vous, on va continuer. Les may wax du neex bandi Je voyous, wax du neex c'est pas fini c'est pas fini Comment qu'elle y Comment Comment ne ma fini je travaille avec les Sénégalais. Damani, ceux qui nous ont infiltrés, on n'a qu'à les arrêter. Béranger, Béranger, arrêtez-moi ces gens-là. Béranger, Pabgon Béranger, arrêtez-moi ces gens-là, envoyez-les en prison. C'est les voyous, les voyous c'est la prison. Bon, je continue. Quand ngeen le meilleur, le meilleur du wax Nous avons infiltré Nous avons mi kenn moomu ko s'il vous plaît silence s'il vous plaît les journalistes mais non, les yëriñ ceux qui ne veulent pas rester ils n'ont qu'à partir mais leer la au travail Damani, les li comme wax fu neexul les ngaa dem li wax du neex kuy bandi du la neex kuy voyou de la neex kuy sac de la neex kuy satané de la neex

ku fi ñëw pour décorer da leen da leen ñaf donc je continue Sénégalais de sénégalais c'est vrai que l'heure est grave réew kenn du ko jël ci xonqtal nit réew kenn du ko jël ci nappaate réew kenn du ko jël ci jaay doole nit ñi kenn moomu leen da nga leen di neex ñu voté la mënu leen jaay dara tous kenn mënu fee jaay dara kenn kenn moomu fi kenn kenn mënu fi di jaay doole kenn ceci étant dit ñu devons nous yo parce que ñun duñu ay Nous ñun duñu ay tapet ñun duñu ay nous ñun ku ñu tooñ ñu duma la ku ñu saaga ñu yar la ku fi jëri dako dañu rëq sa ndigg il faut que ça soit clair c'est le candidat de la sécurité ce n'est pas pour rien que je m'étais autoproclamé candidat de la sécurité maintenant on revient au parrainage et à l'élection je n'ai pas fait de recours pour ne pas être ridicule j'ai dit qu'on n'aurait pas dû accepter le tirage au sort nous l'avons accepté c'est un tirage au sort injuste et inacceptable Pourquoi maintenant faire de recours nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ma ni boo nangoo sag ndof dafee ba nangu ñu naan dañuy def tirage ku njëkk a jàll bu dee am na li nga am yow boo ñëwee ñu dàq la loolu bañ ko nangoo laa xam ni dem ay ay recours yëfu dof la war yi war a bokk ci élection yi ñuy wax ñu ne dañuy seeti Macky Sall

image ma bëggona woné wane te mënu ko woné métti na ma lool ndax café de Rome dañu défaillant café de Rome dañu défaillant tey xaw ndax xaw ma la xaw kenn du xam li ma ngeen woné té tey ngeen gis ko teg seen bët wallaay di ngeen jommi ko dëkk pon dëkk may toj di dem dafa leex ku ko def ku yëngu fi ba jaar ku fa jaar taq bañ fi ma jaar ku fa jaar taq bañ Y a nga am la télévision am internet am sa chaque jour presque réseaux sociaux que am je suis le président des cœurs le candidat des cœurs le candidat des Sénégalais qui vont vu défendre nuit et jour dans ce pays ma vie vous kon vous nañ vous duma vous morom. Vous mettez ben ba de benn nit générale, gis la devant le général Diouf défenseur du peuple sénégalais Nous foog les Sénégal Léon def ma avocat international ancien ministre ancien député député du peuple l'homme du 23 juin celui qui est proche des populations le candidat de la sécurité may